ñoo ngi lay ñaan bala ngaa seetaan sunu vidéo nga daal di abonné bës cloche de notification bi pour vidéo bu ñu dugal rek ngeen mën cee jot seen information bi leen di jox xibaar yu wér te wóor. rek jotaayu xibaar yii lee ak wàllu tàggat yaram rek jëm ca plateau ba nga xam ne nag moom la ñu amoon muy talent d'Afrique ca Canal Plus si Camara rek daal di euh, wax nag conseil ya nga xam ni moom la dénkoon Aliou Cissé ni ko rek mu daal di jóge ci boppu euh, équipe nationale bu Sénégal gile ginnaaw rek bu ñu jeexalee coupe du monde bi ndax ma ngay wax ni euh, campagne yi daal di nay weesu moom Aliou Cissé nag yaakaar na ni sax bilan ginnaawam bi nga xam ni bëggoon nañ ko euh, daal di war na leen nag mën a satisfaire ñoom ñi nga xam ni nag ñoom ñoo ŋànk équipe nationale bu Sénégal gile ndaxte nag ginnaaw yóbbu nañu rek coupe d'Afrique moom El Tactico comme nañ koy tàmmee di ko waxee rek warul toogaat benn yoon nag ci bile nag sélection.

canal bi di Diomassi Nek consultant foofee ca canal plus euh, ma ngay xam entraîneur bi wala sélectionneur bi fum nek le nii lépp lu mu waroon def rek daal dina koy def dafa kay mbir mi nag eh, ci loxo fédération rek après ñoom ñu xool lu ñuy daal di def rek ndax coach équipe nationale bu Sénégal bi rekk eh, rek bëgg changer lu bare rek waaye changement yooyu nañ jàpp ni am na waaye li ma koy conseil rek wala la ma ko conseil woon rek bokk na ci ngir mu daal di rek bàyyi sélection équipe nationale bi léegi ginnaaw mondial bi ndax jàpp na ni sax moom fi mu bëggoon a yegg wala fi mu bëggoon a yeggale équipe bi daal dina fay yegg gi ndax yóbbu na leen euh, ba ñu am coupe d'Afrique euh, bile waaye itam xëy na dafa jàpp ni rek ab beneen sommet la bëgg muy euh, victoire ci kan bi nga xam ne nag ñaari qualification coupe du monde bi nga xam ni war nañ ko mën a amal la moomee ba tey muy dellusiwaat rek di wax ni Sénégal yi nañu bàyyi xel bu baax a baax jom rek ci capacité yi nga xam ni Aliou Cissé am na ko te def na ko ci équipe nationale bu football bile ndax fa mu ko jëlee ak fi nga xam ni tey jii fa la ko daal di yóbbu ba tax na tamit Sénégal ak la mu am ca football moomee nak lépp daal dina koy xamle moomee di ancien milieu terrain bu euh, Full Yaan bu ful aan mbokk yi li gënoon na fës nag ci tënku xibaar yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewlu beeg topp bi ngeen ñu topp wala ngeen di ci chaîne bi rek di Buzz 221 HD jaa ngeen jëf.